xibaar yi wér te woo fii ci leeral SN aboneel te cliquer ci cloche de notification yi xaar vidéo jërëjëf le candidat de Benno Bokk Yakar sera connu samedi prochain kilifa réew mi son excellence président Macky Sall chef de dina xamle turu kii doon candidat coalition Benno Bokk Yakar ngir présidentielle yi ñu 25 février 2024 ñu ne kon gaaw gii dëgg man ci la koy euh, xamle gaaw juróom-ñeenti fan ci weeru septembre kon ci la kilifa gi di xamle kan mooy doon xam ne kon ñoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ginnaaw bu ñu jógee ci màggal gi kon daanu xam kan mooy doon seen euh, mbër ginnaaw nag bañu ko dàqee lu bëree bëri ci woon a xamle kan lay doon bu ñu sukkandikoo ci kaw seen xabaar ji di Le Quotidien ba tey Le Quotidien itam di xamle ne président Macky Sall itam daal euh, daal man naa am dina daje kon dina amal benn réunion boo xam ne kon dina ko seq ak ñi nga xam ne kon ñooy kilifa yi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ngir daal door nag wax kan mooy ah, doon ki mu soit maanaam ñoom ngir xamal leen pour ki mu doon ba noppi nag di Ousmane Sonko sax la ñuy deseet nii ndax kuréel gi nga xam ne moom lañ ko leen layool ñu ngi woo état bu Sénégal di ko xamal nii daanaka wér gu yaramu kii di seen client bi di Ousmane Sonko jéggi na dayoo lool lool lool lool ñoom nag ngi woo état Sénégal balaa lii di nga xam te mooy joote di xew ci réew bu Sénégal